jébbal na balaa xam kalaame lépp li jëm ci wàllu yoon ngir ñu toppal ko kii di DG bu ONAS ba woon muy fàttali ni daanaka moom ak Lassana Gagny moom Aïda Seck ak Lassana Gagny Sakho ñoom ci boppam dañoo euh, waxtaanoon ba juboo ci tabax benn immeuble boo xam ni duñ euh, koy tabax ci 300 mètres carrés nee na ginnaaw bi nag moom Aïda sac mu dem France ndax am jiite yu jàmp yu ko yu ko fa yabal moom ci boppam mu bàyyi fi fi nga xam te ne moo di euh, Lassana Gagny moom ci boppam. ci mbetteel mu mel ni kii di Lassana dafa euh, dafa jalgati li nga xam ni moom lañ tënkoon maanaam Lassana dafa wëlbatiku mujj mel ni jaay dafa jaay terrain bi ndax ginnaaw bi la dégg ñu ni Madiambal Diagne ak jabaram ña ngi fay tabax te ñoom dañoo am lii di titre foncier titre foncier boo xamante ni bii daanaka mi ngi ci kanamu yoon